man dinaa jël baraada teg ka si lal bi ne la jëndal warga suukar ma taari saar xiim ne la ne la ne la ne la ne la kilifa gi naanal. ci tey ataaya boobu noonu kon gaa yi ne leen nga xaar fii nga xam ne mooy Dakar Midi nee na ak Cheikh nee naa maa moom ba géej gi fer ndax day ñëw di ñu woon loo xam ne lu kiraama waxoon na ma loo xam ne am benn nit koo xam ne faatu na ba léegi suurooguñ ko gis nga fan yi tamit coow li si jug li nga xam ne moo xew Kaolack mais avant ñu ñëw foofu nañu ñëw li nga xam mooy combat bi.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 mais dañ bëggoon a xam rek.